yi yéen ñëpp moom sëñ Babacar Moulay Abdoul Aziz ne ñu ngi leen di nuyu di wax salaamaaleykum wa rahmatullah. ci turu xalifa bi. nee na mi ngi koy waxee ci turu Seydi Bakar xalifa général bi. ak njabootu Seydi Hadj Malick yëpp. moom ak njabootu Cheikh Seydi Hadj Malick yëpp. te génnuñu te ñun ñii fi toogee. ne te ñun ñii génnuñu ci njabootu Cheikh Seydi Hadj Malick. njabootam yëpp. ndax njabootam yëpp. njabootu yàlla lañu. njabootu yàlla lañu. xamuma wu ci kuma jur. xawma ci dal mom kuma jur. ak mom kuma jurul jàpp jàpp dafa jàppe woon ni. moom daal moom Cheikh Sidi Hadj Malick dafa jàppe woon rek ni. lii fi nekk. lii nga xam ni moom fi ne. santul si. santul si. santul Haydara. santul Haydara. santul Diop. santul Diop. santul Kebe. santulit Kebe. yàlla la sant. yàlla rek la sant. tax nëbbu ci woon dara moo tax moom nëbbu ci woon dara lépp lu fi nekk rek lépp loo xam ne mi ngi fi rek tey njëriñul jullit tey njëriñul jullit te mu war ca jot te mu war caa jot bind na ko bind na ko ñëpp gis ñëpp gis kon yàlla nañu ko yàlla fayal moom Cheikh Seydi Hadji nañu ko yàlla fayal yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla amin yàlla nañu ko yàlla fayal fayaale mag ñi it mag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ak moom nëbbu ñu dara ci li mu nekkee woon. moom nëbbu ñu dara ci li mu nekkee woon. wax ji nag du wax ji nag moom suñ Babacar Moulay Abdou Aziz ne du yàgg. Euh, waxtaane nañ ko ba tey. lii mu wax léegi jàng ko waxtaane nañ ko fii ci barab bi ba tey. Euh, dañ ciy tënk tuuti rek. dañu ci tënk tuuti rek. mbokk yi lu ñu fi dajale. waaw ne mbokk yi mi ngi laaj ñun ñii fi teew lan moo ñu fi dajale. jaamu yàlla ci la bokk. jaamu yàlla ci la bokk. waaye bis bi bisu lan la. waaye bis bii la wax bisu lan la. ban ayit la. ban ayit la. ayidul adha mooy tabaski. tabaski la. nee tabaski la. tabaski ndax mooy jënd xar rek yóbbu sa kër. nee waaw tabaski mooy jënd xar rek yóbbu sa kër. buñ ko teg xale yi ci ñun la. waaye nee bu nu ko teg xale yi nag ci ñun ñii la. fa mu juddoo. nee fa mu juddoo. ñu ne la ñu ne la. yar ko yar ko boo ko deful boo ko deful yu hawidaanihi yu hawidaanihi aw yu nasiraanihi aw yu nasiraanihi aw yu majjisaanihi aw yu majjisaanihi ba nga koy rayal xar ba nga koy rayal xar moom doom ja pour tudd ko pour tudd ko foofa la yàlla jote ak yow foofee la yàlla jote ak yow te foofa dafa tooy xepp te foofe nag dafa tooy xepp mu mu mel ni birig bu tooy mu mel ni birig bu tooy loo ci rëdd loo ci rëdd rek mu jàpp boo bàyyee ba mu fenn boo bàyyee ba mu fenn wala mu wow wala mu wow da ngay xoos da ngay xoos te bu boobaa poussière rey te bu boobaa poussière rey la kon fan la ñuy tàmbalee yar. kon fan la ñuy tàmbalee yar. sori na lool sori na lool. moo tax euh, ki moo tax ki du yàpp rek. du yàpp wi rek de. dañ ko fee def. dañ ko fee def. pour nga ragal yàlla. pour nga ragal yàlla. moo tax. moo tax. benn waay nee na. benn waay nee na. huwa imtisaalukum li amrillahi ngeen jëfandikoo ndigalal borom bi. ne ngeen jëfandikoo ndigalu sunu borom subhanahu wa taala. te sax nag. te sax nag ci wax. ci wax li yàlla bëgg. li yàlla bëgg ak di ca woote. ak di ca woote. loolu. loolu nag ku ko def rek. ku ko def rek yaa ngi ci yoon wi yaa yoon wi. yàlla. yàlla. waxul rek ñu rey. waxul rek ñu rey de. dëgg la dëgg la. rey rëy na. rey rëy na. waaye yëg ca. waaye yëg ca nag. lu la juddool lu la juddool lu la yóbbu lu la yóbbu ci ragal yàlla ci ragal yàlla bu ko defee nag ne daal bu ko defee nag léegi euh, yal nañu yàlla boole jàppale yal nañu yàlla boole jàppale yal nañu daw lu xaraam yàlla nañu daw lu xaraam te wuti lu dagan te wuti lu dagan xam lislaam rek doyul. nee xam lislaam rek doyul de. xam lislaam xam lislaam ba pare. ba pare bàyyi lislaam bàyyi lislaam xew-xew. xew-xew bu mel nii. bu mel nii moo lay delloosi. moo lay delloosi. ngir yàpp wu duuf. ngir yàpp wu duuf. waaye yàlla delloosi wu waaye yàlla delloosi wu la. ko defee ñëpp. nee bu ko defee nag ñun ñëpp. lislaam a ngi fi. lislaam a ngi fi. di gën di bees ci ñun. di gën di bees ci ñun. di yeesal lépp di yeesal lépp nag. di woo doomu aadama yi. di woo doomu aadama yi. ngir ñu gëm yàlla. ngir ñu gëm yàlla. jox ko seen bopp. jox ko seen bopp. bokkul ci lislaam rek. bokk ci lislaam rek. doyul doyul. il faut nga jëfandikoo ci biir il faut que nga jëfandikoo ci biir. lépp lu mu la tere. lépp luñ la tere. moytu it. moytu it. lépp lu mu la bàyyi lépp luñ la bàyyiloo. للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها وإن لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون bu ko defee nee daal bu ko defee nag léegi. dellu si bu baax. ñu dellu si daal ñun ñëpp bu baax. delloowaat yàlla sunu bopp. delloowaat yàlla sunu bopp. te maandu. te maandu nag. ndax lislaam diiney maandu la. ndax lislaam diiney maandu la. tey rafetal. tey rafetal. ndax lislaam diiney rafetal. ndax lislaam diiney rafetal la. tey sellal. tey sellal. ndax lislaam. ndax lislaam. diiney sellal la. diiney sellal la. tey tuub. tey tuub. jëm ci yàlla. jëm ci yàlla. tey lislaam. tey lislaam. mu nangul la mu nangul la. jéggalu ku jéggalu mu jéggal la ñu defaraat sunu bokk ñu defaraat sunu bokk mbokk yi mbokk yi innamal muminuuna innamal muminuuna fa aslixu fa aslixu wattaqullaha laallakum turhamun nañ ko njëkkee ci tiwaawoon mbay ci sawewu tànk nee loolu lii mu wax muy aaya boobu nañ ko njëkkee fii ci tiwaawoon mbay ci sawewu tànk nu njaboot gi mel waaw nan la njaboot gi mel ala ittifaqin wala ala alfiraq mbokk yi wuyu leen ma. waaye mbokk yi lii mu wax léegi. wuyu leen ko bu doon man rek la doyloo naa ndax liir naa ko ci téere bi. nee bu doon moom dong doyloo na ko ndax liir na ko ci téere yi. li ñu dajale waaye li nga xam ne ñun moo ñu dajale. du yàpp wi. du yàpp wi. ak bis bi ak bis bi. yàllaa ñu dajale yàllaa ñu dajale. soxla fu ñu dajee nag. soxla nag fu ñu dajee nag. ñu toog waxtaan ñu toog waxtaan. dellu siwaat dellu siwaat. ci l'islam ci l'islam. quatre-vingt-quinze. quatre-vingt-quinze. pour cent yi pour cent yi. ay ay. ci wax wala ci jëf. ci wax wala ci jëf

mbokk yi nañ leen dellu si mbokk yi nañ leen àndandoo bokk dellu si li tax ma tëb lële waxuma ko li jëm ci tabaski gu mat ak gu matul yépp ne li tax mu tëb lële waxu ko li jëm ci tabaski gu mat ak gu matul lépp dund gi def ñu tiital ñun ñëpp dund gi def ñoo tiital ñun ñëpp te ku fekke muccul te tekk nak ku fekke muccul fekke muccul fekke muccul waqad nuzila alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati llahi yukfaru wa yustahzau bi baba fala bu ngeen ko defee innakum idhan fuñ ci tollu ñun du ngeen ma wuyu ah nekk ca biir loola de nee nekk ca biir lool kon lu ñu doon kon ñun léegi lan lañ doon nga dem ci wa ida raayta alladina yaxuduuna fii fa aarid anhum xata yaxudu fi xadisin gayr wa imma yunsiyannaka alcheytaanu fala taqood bada dicre maa alqawmi zalimina lan moo waral ma toog fii di xutba nee moom lan moo waral mu toog fii di xutba Ah, du ngeen ma wuyu waaye wuyu leen ko. nit ñee fi toog. nit ñee fi toog. moo tax ma toog di xutba. moo tax mu toog di xutba. bu ngeen fi fekkul woon kenn. bu ngeen fi fe bu ñëwoon fekk fi kenn. mu taxaw di ko def. mu taxaw di ko def. ku ma romb looy ku ko romb lan lay wax. bu ko defee nag waaw bu ko defee léegi. dinaa bàyyi Pape Makhtar mu. nee dina bàyyi Mame Makhtar mu àggale ko léegi. ñu defaraat sunu bopp. nee ñu àndandoo defaraat sunu bopp. tey dimbalante ci biir. tey dimbalante ci biir. tey teralante. tey teralante. diine yàlla. diine yàlla. du diine ju ñuy foye. du diine ju ñuy foye. nañ ko jëlaat. nañu ko jëlaat. delloo delloo si ko ci palaasam. delloo si ko ci palaasam. ci sunu xol. ci sunu xol. ak sunu cër. ak sunu cër. ak sunu xel. ak sunu xel. Seydina Muhammad. nee sallallahu alayhi wa sallam moom Seydina Muhammad. ci xadiisul qudsi. nee ci xadiisul qudsi. mbokk yi. mbokk yi. buñ doon rus. waaw buñ doon rus. kañ kan lañu war a rus. kan la ñu war a rus ñun. ah nee bu ñu doon rus ñun ñii kan lañu war a rus ah. yàlla est-ce que ñun rus nañu yàlla. nee est-ce que sax ñun ñii rus nañu yàlla. koo xam ni foo nekk mu ànd koo xam ni foo mi ngi ànd ak yow. toog fa ngay xalaate. toog fa ngay xalaate. bu bu ñaawee. bu ñaawee. mun la bu mu jib mun la bu mu jib. huwa aalamu bi ma fii. هو أعلم بما في ويلن هو أعلم بما في بما في نفوسكم فإنه كان للأوابين كون كي خلات لبن واو كون كوي خلات لبن جمي كو تي مان جمي كو تي موم بي با مختار ولا تي با مختار كبه كان لا سي نديك سيد كان لا سي نديك سيد كي لا kon nañ defaraat mbir yi. kon nañ leen àndandoo bokk defaraat mbir yi. te tuub nag sunuy bàkkaar. te tuub nag sunuy bàkkaar. te suturaalante ci sunuy ayiba. ne te ñu suturaalante ci sunuy ayiba. تخمني يلا مستوير كن تخم ديدت يلا مستوير كن كويرو كويرو يا وير سبب يا مومي يا وير سبب ولا ساي بوك وير ولا ساي بوك وير لا ان الله ان الله حيي حيي واي ستير واي ستير يلا نينا يلا نينا كو بري كرسلا كو بري كرسلا واي كرسغي لي موي بري واي كرسغي نك لي موي بري بري بري سما سوترا سما سوترا kon ñun ñep ñu delu wat ci lool kon ñun ñep ñu delu wat ci lool ba lula mëna romb ba lula mëna comme ni ko benn kilifa waxe woon comme ni ko benn kilifa waxe woon rek ko wax ak doomam doon ko wax ak doomam naan ko doom naan ko doom bu la sa bakkan xëccee bu la sa bakkan xëccee ci mooy yàlla ci mooy yàlla neel teg neel teg boo ko deful boo ko deful di nga sànni sa bopp di nga sànni sa bopp ci ci musiba ci musiba waaye da ngay sànni sa xel waaye dangay sànni sam xel ci suuf ci suuf bàyyi xel yàlla bàyyi xel yàlla ndax moom ndax moom kat mu ngi teew mi ngi teew fàdduwul benn yoon fàdduwul benn yoon ku rusul yàlla nag ku rusul yàlla nag koo rus da nga koy nax koo rus da nga koy nax bu ko defee nag nee daal bu ko defee nag bàyyi maxtaar mu bàyyi maam maxtaar mu àggale waaye sëñ Babacar nee na waaye daal sëñ Babacar sëñ Babacar nee na di jottali waxu yonent bi di jottali waxu yonent yàlla Muhammad nee na واعطوا الطريق حقها نغن جوخ مبد مي نغن جوخ مبد مي حقا حقا فوفو لاكو سيد سيني بابا كير جيلي نا فوفو لاكو سيني بابا كير جيلي لان موي حق مبد مي لان موي حق مبدمي مي من دي وقتان لي سي لا من نا وقتان دال من بلا جي نك دنج كو روي واو ديلو نويو بوك نا سي حق مبدمي مي ما مختار ني ديلو نويو Maxtaar wax ko rek wax ko ne maam Maxtaar sëñ Babacar ne gàggale ne nga dimbali ko bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne delloo nuyoo ci la bokk waaye imaatatul ada dindi dindi fi mbalit waaye dindi fi mbalit walay xeer walay xeer wala ay bant wala ay bant dindi ko ci mbedd mi dindi ko ci mbedd mi boo ko fa bàyyee boo ko fa bàyyee ba nit fakkatalu ba nit fakkatalu ci wala mu dig jëm ko ci wala dig jëm ko ca wala sobe taq ko wala soble sobe taq ko ca lépp yow yow moomee ka gis te dindiwoo ko yow moomu lépp yow la kon kon euh, euh, tiwo kii yii ñu def tiwo yii ego yii ñu def égo yii ñu def du pour mbalit du pour mbalit de du pour mbalit du pour mbalit te tuur mbalit ci mbedd yi te tuur mbalit nag ci mbedd mi booba ba bu fay jógee booba bu fay jógee di nga nekk ci rëbb dana nekk ci rëbb yàlla ñu ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal nañ dellu siwaat nañ dellu siwaat bu mbedd setul bu mbedd setul ëtt du set. ëtt du set. bu ëtt setul. bu ëtt setul. saal du set. saal du set. bu saal setul. bu saal setul. néeg du set. néeg du set. bu néeg setul. bu néeg setul. lal du set. lal du set. bu lal setul. bu lal setul. darab du set. darab du set. bu setul. bu setul. jëmm du set. jëmm du set. mbubb du set. mbubb du set. xel du set. xel du set. nañ dellu siwaat ci sunu bopp nañ leen dellu siwaat ci sunu bopp. yal nañu yàlla boole jàppale. yal nañu yàlla boole jàppale. wax leen amiin. te si nga xam ne nee nga ñaan nangu leen ñaan wax leen amiin si nga xam ne bi nga ñaan nee nit ñi nag dañuy jàpp ne boo fekkee te waxoo amiin di nga caam déedéet da ngay wax amiin de benn nit dafay yóbbu pour ñu ñaanal doomam mu am doom jigéen la yóbbu Serigne Baye ñaan yaa ngi amin te doom yi amin ba ñu tolloo ci ñetti weer ji mu ñëw ci sëriñ ni ko man kat waxuma la woon sama bopp sama doom laa bëggoon mu ko waaye yow wax amin kii waxu bokku kon wax leen amin ñun ñëpp wax amin waxuma amin amin fi yàgg te wér. allahumma amin. allahumma amin. اللهم امين صلاة الفاتح الحمد لله